ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ko moom nañ ko fonk kenn bu mu ñu ko gën a fonk nit lam moom da koy fonk du ko sàggane jaa ngeen jëf murit bismillah Allah baramba Ibra mbaax la jërëjëf sëñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lampa Baabul Mouridina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Waarwi TV ñu ngi leen nuyu bu baax nag di leen ziar di leen ndokkeel ndogal maam Cheikh Ibrahima Fall Lampa Baabul Mouridina di am fii ci tuwa eh, diwaanu eh, Mbacke Bawal ci Paaleen tey ñu ñëw fii nag eh, ci pencum Serigne Abdoulaye Fall Ndar mi nga xam ne nekkoon na xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Lampa Baabul Mouridina waaye noonu lay nuyoo bu baax nag. ki nga xam mooy borom pénc mi tey muy sëriñ Euh, maam Cheikh Maye Fall muy Serigne Cheikh Jëmmu Fall ñaanal ko mu yàgg fi loolu ànd ku wér waaye noonu lay ñaanale jàmbaram ji muy Serigne euh, ab Ablaye ñu tudde ko Serigne moo Tall Fall euh, mi doon xalifa Serigne maam Cheikh Maye Fall Lampa Mouridina waaye noonu ni tamit la ñuy nuyoo bu baax nag Serigne lu baay suñu xarit ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar sëñ maam Cheikh ak mboolem njaboot Cheikh Modou Ablaye Fall Ndar gépp sëñ Ablaye Fall Ndar gépp di ñaan baax baax suñu waajur wa suñu xarit ba suñu soppe ba Cheikh Mamadou Ablaye Fall Ndar yaa na ay àjjana ci barke a Tuubaa Xaadimu Rasuul kon soxna si ñu ngi leen di dëra ziar ñu ngi fekk la fi nga xam mooy kër Sëriñ Ablaye Fall Ndar euh, ak euh, situation ndaw yi waaw asalaamaaleykum mosbilahi mm-hmm. mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin waa ndog yi de moom ni nga ko gisee rek mm-hmm. di sant rek di santaat mm-hmm. di ñaanal sëñ Seex jëm bu yàgg fi loolu te wér di siyaar si Muntaxa Mbàkke yàgg fi te ànd ak wér di ñaanal Seex moo taala Fall mi mu yàgg fi ak wér ak rakkam sëñ Fallou baay sëñ maam Seex sëñ maamun ñoom ñëpp rek sëñ moo danta Fall rakkam miim mu àndal nii saa boo ñëwee nii nga feke fekkee noonu lañ àndee mhm. sëñ taala nag di jàmbaar ju baax ju bëgg lislaam ju bëgg yoonu maam Seera Fall ku bëgg Seex Ablaay Fall Ndar ku bëgg maam Seera Fall mhm. bëgg sëñ Cheikh Jëmb Fall mhm. bëgg magam ju baax ci Cheikh Modou laay Fall Ndar mhm. yàlla na yoolu yokk leeram te taam toppoon na ci moom loolu nag mhm. def ko muy kilifaam di sëriñam di baayam jox ko léppam Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar rek suñu def li gën ah. ñu koy ñaanal tam yàlla yokki leeram taaf ci barkeem sëñ Talla Abdoulaye Fall mii nga xam ne moo fi wutu tey nag di rakk ju rakk di taalibe lool oyof tooy bëgg ñëpp yërëm ñëpp nekk fi war a nekk ñu koy ñaanal fanu gudd wa ànd ak wér te lii mu sembu mu eggale ko jàmm lii mu bëgg ci ëttu baayam bii ba dekkalaat kër baayam gii yàlla na ko Seex Ibra ak sa Ibrahima Fall baayam jàppale ba man ko yan bii bii mu yan yàlla na téeñ ba ci boppam barke Seer Fall ak rakkam yi ma àndal sëriñ Taala nag ku nangu ndigal la ku topp ci ay magam xajamalut yoon wi de moo tax dañ koy ñaanal mu yàgg fi te wér mhm. ndax lépp luñ doon séntu ci moom mi ngi ci moom mat na sëkk sëñ taala xibur kenn mhm. ku feebar seet na la mhm. ku jàq boo gestoo gis na sëñ taala kon ñun tiituñu dara jàquñu dara ci yoonu kër Seex Ibra sëriñ ji mu faali na mu war a topp ci moom toppee na ko ndogo yi saa bu ñu xëyee dañuy ànd a ñun war a ànd ak soxna Ami Guèye mii nekk fajar li ñuy xëy si fii six de du matin fii la ñuy fekk wallaay ansi fii la ñuy fekk sax nag yow soxna yàgg faal ñoom yaay mi géey yàqu jasaar ñoom ñooy samay mag maa ci gën a nekk xale damay sant rek di santaat sëñ taala jox ma cër lool faal xàmme naa la kay ka sëñ mu rab lay mi ngi noonu kon gis nga ko mm-hmm. Mm-hmm. noonu ñu nekkee woon foofu taxaw fa mm-hmm. bi ñëwee tey jii mu yor yëf yi da koo tegaat ci suñu loxo dindiwu ci dara faal yàqu ci dara ni ñu koy ñaanaa fan wu gudd ànd ak wér ndog itam dara manqué wu léegi ndog ni ngeen koy toggee ni koy toggee mooy bu ñu teelee ñëw. 6 mhm. heures de matin fii la ñuy fekk. Mhm. ñi war a xolli xolli pomme terre yi. Mhm. ñi war a raxas ginaar yi raxas ko. dinañ taal juróomi mbala. togg ko ni ko war a toggee ci set set ak sell ni ko sëñ Muntaxa bëggee ma jox ko sëñ Seex jëmm sëñ Seex jëmm joxaat ko sëñ Taal Ablaay Fall Ndar mi mu tegaar ko ci suñuy loxo boole ñoo xaadim ndooy lépp ci set ak sel lañ ko lañ lañ koy liggéeyee mm. bëgguñu dara lu naqari sëñ bi am ci mm. lim bëgg rek suba ba ca ngoon moom la ñuy daw mm. ñun wa ak waa daayira bi yëpp ak soxna Ami Gueye mii danañ jàpp ba sel ba la ñu cee jublu mm-hmm. nekk raxas ba set xol yëpp teg juróomi mbala num ko bëggee togg ko ba mu sell di fukki bool mm-hmm. fukk ak ñaar lañ daan def mm-hmm. kumte bu nekk danañ def fukki xar ak ñaar ak i ginaar moom la ñuy togg fukki bool ak ñaar mhm. tey jii nag fukki bool la ñuy togg chaque jour moom la yóbbu nii bi ngeen ñu fekkee moom la ñu togg mhm. waaye nag sell rek ak bu yar mhm. ak i teggin ni ko sëñ Talla bëggee. amul xëccoo ak amul xëccoo amul ŋaayoo. amul xiiroo amul maa war war a ruusee. déedéet amu ci dafa am yoon wuñ ko tërale sëñ Talla Ablaye ni nga ko fekk muy doxe noonu lay ay taalibeem di doxee macha allah boo ñëwee kër Sëñ Ablaye Fall Ndar booy wërub yar ba ñëw ko Sëñ Ablaye Fall fi ngay dëppee. lépp a ngi fi macha allah. xanaa kay fan mu gudd dañuy ñaan ak wér. ak xéwal mu dolli murid yi. ñaanal taalibe yi ba li mu bëgg ci ñun mu am ko. dara manqué wu. danañ ko togg nu mu ware jébbal ko ko ni mu ko waree. ñu ànd ko sëñ Xaadim Ndooy mu jébal ko sëñ Seex Jëmb Faal ni mu ko ko war a jébbale mu jébal ko sëñ Muntaxa ci ak yar ak teggin nee na ku ndajal ci yoon nañ ko won yar nañ ko won teggin nañ àggee ca kër ga yar ak teggin loolu ñu yare moo nekk ci moom moom la ñuy doxee di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan fan wu gudd ànd wér di sa sëñ Modou Fall mi nga xam ne mooy taawam ak sëñ baa Djili Fall. soxna Ami Guèye ngi mooy jëwrin moom lañ bokkal ci nii man ak sëñ bi moom sant rek. waaw ah, sant rek yàlla xet doon ñii ñëpp ci lañ yaakaar naa ko ñoom ñëpp. ak mm-hmm. yaa ñaa ngi. Ah. fajar la ñuy ñëw kenn maa ngi ciy fajar ngeen di ñëw fajar la ñuy ñëw amul xëccoo amul mm-hmm. kenn ku ne yaa ngi poste bi nga war a nekk. Mm-hmm. sa àddee yëpp mat na jaayante nañ ni soxna jaar bu so toppe woon Serigne Touba noonu lañ fas yéenee toppee suñuy borom kër toppee ko Serigne Talla Ablaye Fall Ndar ba li bëgg ci yoon bi Serigne Touba ak ñoo ngi jéblu ci kàddu bi amee lenn lu ci dëng ñoo ngi koy lépp jub macha allah ak Serigne Touba Seydou ñaan jàmm ñu teewaat ko na gën déwén yéen ñii dañ leen di ñaanal mhm. ngeen yàgg fi ànd ak wér amiin amiin suñ xol sedd na ci yéen baax sëñ Talla xolam sedd na ci yéen mhm. ak sëñ Fallou Baye ak sëñ Mamadou ak sëñ Maam Seex ñoom mhm. ndax yéen lu nekk yéen a ngi ci suba ba ca ngoon daaw nii ngeen defoon rek nii ngeen defoon yàlla na télé yi gën a kawe. amiin wér gi gën a yokk. amiin amiin saawaan baawaan yàlla boole ñu ko barke sëñ Tuubaa sëñ ñoo ngi jéggul baax ci kàddu soxna si noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di nuyu sunu kilifa yi fekk fii ñëpp di nuyu Cheikh Mor Talla Fall mi xalifa Cheikh Ablaye Fall Ndar fii ci kaw suuf ñoo ngi nuyoo bu baax di siyaarewaat bu baax a baax a baax tey santaat yàlla bu baax nga xam ne man samay kàddu sax jarul mu di ci bari ndax ma war a wax lépp soxna Bintu Njaay Baay Faal wax na ko ba noppi nun dañuy sant Cheikh Mortala Fall mii rek ndax ni ya yoon wi danoo dikk ci seeni loxo sunu loxoy boroom kër fekk fi Cheikh Mortala Moudou Abdoulaye Fall Ndar nu nekk ci ndogu yi di ci ban ba ndogu yi nekkee njaareem dan daan def fukk fan a juróom nu dem njaareem dajale sunuy addee yóbbu fa ba seen Moudou Abdoulaye Fall Ndar indi ndogu yi Touba nuy ñëw kenn ku ne sa fa nga xëye ngay xëyee di Madiana ca kër sëñ Modou Abdoulaye Fall nu togge ko na mu ware defe ko na mu ware eh, jébbal ko sëñ bi mu dem jébbal ji ko sëñ Touba noonee na la ñuy doxe ba yàlla def li mu def def la gën Cheikh Modou Abdoulaye Fall wuy ji borom yal na yàlla yokk leeram taas na ci barkeem te yàggal fi Cheikh Mortala Fall mii nga xam ne moo wutu tey taxawaayu baayam ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm taxawaay ba nga xam Cheikh Modou Abdoulaye Fall taxawal na ko mi ngi ko taxaw bu baax a baax moo rakkam yu baax yi di sëñ Fallou Baye sëñ Modou Anta sëñ Maam Cheikh ñoom ñëpp ñoo ngi bokk taxaw nii fas yéene doxe yoon wi na ko sëñ Abdoulaye Fall daan doxe sëñ Modou Abdoulaye Fall doxe ko sëñ Mortala Fall jël ko nii yal na yàgg te sax noo ngi sant bu baax suñuy kilifa ñi nga xam ne ñoo nu boole ci yoon wii ndaxte yoon wii yoon yoonu sëñ Abdoulaye Fall bii képp koo xam ne bokk nga ci am nga ndam am ga tiitar am nga sak noo ngi ciy bu baax a baax a baax ci sant sunuy borom kër yi nu ci boole di sant sunu ñaari waajur yi nga xam ne si def na nañu ay taalu taalube nu juddu nekk ci Baye Fall gi mu boole noog Baye Fall yi nu tab ci ëttub Seex Abdoulaye Fall Ndar sant nan bu baax tey santaat bu baax tey di ci damu baax ñu asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen sant yéen waa télé bii nag yàlla na ngeen yokk te am ndam faaw. ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax nag di leen ziar di leen fàttali ñu ngi fii ci euh, ci Mbàkke euh, ci pencum euh, Baye Fall yi muy pencum sëñ Ablaye Fall Ndar yaa na yàlla yokk leeram bu baax nag yaata xéwalam ñu toog ak ab xalifaam muy sëriñ Baye Tall Ablaye ak sëñ Baye Fallou baay ak sëriñ Modou Mamoun Fall. ñu ngi koy ak suñ Modou Anta ak suñ maam Cheikh ak mboolem njabootu suñ Abdoulaye Fall Ndar képp duñ fàttee soxna euh, soxna Mbène di ñaan baax tonoon day Abdoulaye suñ borom yokki bu baax yaata xéewalam ak magam ju baax ci nga xam ne suñu xarit la suñu soppe la sëriñ Mamadou Abdoulaye kon euh, Baye ñu baax di la ak waar wi kii salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant di leen ñaanal ñaan suñu borom def jàmm ci dëkk bi def ko ci naa bu loolu ñu ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ak sañ Seex Jëmb ak njaboot ak sëñ Tuubaa ak maam Seex sëñ Mor Tall yi nga xam ne moom nekk sëñ Ablaye Fall mu yàgg fi lool ak jëwrinam gi jiite sañ Fallu ak sëñ Modu Anta sëñ bi nee na sedd na lool ndogu yi nag ci ngeen ñu fekk ñu ne ci sëñ Ablaye Fall moo ko daan def daan ko defee njaareem fi sëñ bi jógee it ñibbi àjjana sëñ Modu Ablaye di ko def ndax sëñ Ablaye Fall bu ko daan def da ko daan def njaareem di togg di yóbbu indi fii Touba togg yóbbu kër sëñ Basiru mu fi sañ sëñ Taala mi ànd ak sëñ Mor Ablaye takk laxasaayam takk ndiggam di ci jëf ba suñ borom tey teg ko fii mu fii mu nekk ndax fii mu nekk tey ji ak toppe ak nangu ndigal moo ko fi teg moo fi tax a ne moo ko a ne kon yàlla na yàlla na yàgg mu jóge fi suñu Mor Ablaye jóge sëñ Taala ne fi liggéey boobee mu yeesalaat ko takkaat laxasaayam ànd ko ki rakkam ak taalibe yi ak jigéen ñi ndax sëñ Fallou mii mooy jëwriñam mooy léppam mooy loxoom mooy léppam kon loolu ñu ngi koy yeesa di ñu ngi ñu ngi koy wax baax a baax baax ndax taalibe yi yëg ko sëñ bi nag ñun ñi di rakkam day am na fu ñu teg am na nu ñu jàppe taalibe it ndax ki fi jëwriñ jëwriñ muy bàyyi am di seet nekk mooy jëwriñ kër gi ku sañ ne sëñ Ndiaye ñoom ñi ñu ngi fi ay ay doomam baay Jili Fall sañ Moodu mooy doom ju mag Baye Jili Fall bu ma tuddee baay Jili tudd sëñ bu tudd naa ñëpp kon ñu ngi koy ñaan mu yàgg fi lool di ñaan suñu borom fanam ñaan suñu borom defal ko jàmm sëñ nag wax dëgg yàlla neex na àndal baax na am nag yëg am na yéene ci liggéey bi te liggéey Sëñ Fall moo ko ñor kon ñu ngi koy ñaanal lépp loo xam ne bëgg na ko wala mu yéene ko liggéeyal ci kër gi loolu yàlla suñu borom mottali ko ba mu àgg ci jàmm. ndax ndoxuy kat euh, digg naa ñu na mas na wax ne euh, sëñ ma Mamoun wax ne nee nañ ndox yi ñetti pay la sëñ ñetti fay la te julli boo ko defee yàlla lay fay nga war yàlla lay fay ngaañ màkk yàlla lay fay nga tabaski yàlla lay koor gi ñetti ñetti ñetti fay la ndax boo ko defee yàlla da la fay suñu baa fay la seer faal fay la kon koor koor lépp doole waaw kon wax ñi ñoo xam ñu koy ñu def di njaboot seer faal te ñu koy def da nga foo fa dem da nga defa ne faal rek a fa nekk kon seer faal ngi fépp waaw fépp foo dem tey ci kër tey ji Cheikh ñëpp nga koy def tey foofu da nga fa nekk te fépp la Serapha nekk Serapha dooleem kenn xamu moom rek moo ko xam ak sëñ Touba kon ñu ngi ñaan sëñ Mor taalim mi yàlla yàggal ko fi. sëñ Ablaye nan la ci koor gi. sëñ sëñ Ablaye day maanaam di nga xam ne moo daan dundal ci maam koor gi ci boppam ab liggéeyam ndax sëñ Ablaye nga fi jóge 75 ndax ak liggéeyam ndax sëñ maanaam booba lii tey am amutoon ndax booba ceeb lañ daan def ah, waaw ceeb waaw ceeb sëñ Ablaye ceeb la daan togg wante ay ay ndogam it musta tardé mosu ko bokk ak kenn ndax sañ Ablaye li biir lim fi nekk lépp it wax dëgg yàlla moom kenn ku ne xamul na ko du du wàllu ndog rek ci liggéey bi ndax ñu toll ne ñaar fukk ak ndàngam kooku am loo xam ne benn benn at mosu te amoo bokk ko ci liggéey tey ndog yi mos dara mos cee yàqu loolu sëñ ñaar fukk ak ndàngam ba at mu nga dem nga dem ci liggéey liggéey ba ngay liggéey yàqu dara dara ci li ngay def ñaata la am euh, ci toogaayu Cheikh Ibrahima ñaar fukk ak benn ne toog na ko ci kër maam Seera Fall ndax ndax kër sëñ kër sëñ baat gi moo ko liggéey ba mu moo bel liggéey liggéey bel ba mu te sëñ blaat fii ne bari bari dañu xam ne sëñ blaat sëñ blaat bi muy toog xalifa amul kër moo ko sëñ Sall ñoo bokkoon kër gee sëñ blaat Fall ko defar kër gii ak belel belel waaw waaw ndax lim lim liggéeyal sëñ Tuubaa ci sëñ Abdoulaye Fall lim liggéeyal boo comme lu wér la moom ñaar fukki at ak nangam la toog liggéeyu ko waaw ànd ko sëñ Mourou Aminta Fall nag jëwrinam jëm jëwrinam ja yàlla na yàlla yokk leeram waaw sëñ Mourou Aminta Fall moo doon jëw ànd ak sëñ Mourou Ablaye ak sëñ Cheikh Adi ak sëñ Talla mii kon loolu jar a bàyyi xel la kon yeen ñi xam ne ngeen fay ñëw it nag ñu ngi leen ñaanal yéen nag saa bu nu leen fi taxaw te jàpp leen liggéey bi ngeen liggéey nga xam ne maanaam da ngeen ko da ngeen ko da ngeen ci am njiit ci kër gi muy sëñ Cheikh Roqaya moom yàlla na ko yàlla fay ndax li muy def kat maam la koy defal defalu kenn waaw waaw maam la koy defal defalu kenn kon loolu muy def rek te maam rek tax mu di ko def yàlla na ko maam fay ndax moo moo amuk nag waaw waaw ñi ngi sant baax leen gërëm nag di ñaanal yàlla fay leen sëñ taal bi fi nekkee nag suñu borom di ko di ko saa bu yàlla ko defee ndam ndax li a def def na ko ki ma ñu topp topp ne ko tuppul mu dem ko topp mu dem ku ànd ak mu dem ku ànd ak mu dem kon nañ ànd ak mu ànd ak mu yóbbaale ñu waaw kon yàlla na ko yàlla fay barkat sëñ Ablaye Fandar yàlla na fa yàgg tamit Fall jërëjëf. jërëjëf sëñ Bassirou Sylla ñi nga xam ne liggéey suñ Tuubaa rek moo ko tax a jóg ak soxna maam Jaara Seck waaye jërëjëf euh, suñ sang yi nga xam ne wala suñu waajur yi nga xam ñoom lañ fekk si woon fii euh, ci diwaanu Mbàkke euh, fii ci péncum sëriñ Ablaye Fall Ndar di ko ñaanal suñu borom gën a yokk ay leeram bu baax nag yaata xéewalam ki nga xam ne moo ko fi toog wutu ko fi mat mat lépp nag sëriñ Ablaye Fall Ndar muy ba taal Tall Ablaye ñu koy jaar bu baax nag di ko ñaanal yàgg ak mu yàgg teew si bis bi waaye nag yàgg koo def dal lépp lekk lu mu ciy def rek yàlla na ko suñ boroom nangu si bàkk Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul waaye jaare mboolem njaboot suñ Ablaye Fall Ndar gépp kër gi moom sama kër la bu ma duggee fu ma neex lay jaar macha allah waaye nag sang ba moo ma ko may muy Sëriñ Moodu Ablaye Fall Ndar yal na yàlla yokki leer bu baax fii la dëkk dëkk Cheikh Ibrahima Fall nekk asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu